tey ñoo ngi fii ak Abdou Diouf promoteur bëgg a waxtaan ak Abdou Wane a waxtaan ak moom ci làmb bëgg a waxtaan ak moom fi làmb toll ñu bàyyi ko mu nuyu Abdou nuyu naa la. fay grand. seen télé bi moo tudd naka. wasaare làmb. ah wasaare làmb. wasaare làmb waaw. waaw wasaare làmb siyaare naa leen delloo naa leen ziar bu baax a waaw. tey noo gisee Pape Thialis Faye andi fi làmb biir biir biir biir biir fi mu sax. fii Joal Fadiouth Joal andi fi làmb noo ko gisee tey. waaw loolu boo ma ko laajee dinaa ci sawar a tontu ndax li tax loolu mooy lan euh, Pape Thialis ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax mën nañu waxee lit lit bi. maak Doudou Faye nga xamante ne moom mooy euh, président des amateurs ñun ñoo ko yor daaw defoon nañ ko fii Joal fii Euh, ren ñu ñu defaat ko waaw. mais defoon ngeen ko daaw defaat ko ren ren tey ñu gis ngeen andi lo poids léger suba ngeen andi poids lourd ba cee toftal ki nga xamante ni mooy Tapha Tine ak Boy Niang nu ngeen euh, déroulé loolu. waaw loolu moom euh, boo ma boo ma ci laajee côté boobu dinaa ci sawar xam nga ñun comme li faral di wax gars rek ñun. dafa am ay yoo xamante ne ñu ngi ci làmb ji dañuy dund ci làmb mais ñun dunduñu ci làmb dañuy dundal làmb làmb daf ñu jaral lu ne yaa ngi may dégg ñu nekk ay amateur nekk ay promoteur nekk lu ne ren dem nañu Gàmbi lu mot ñeenti yoon yoo xamante ne dañuy jógee Dakar lak suñu essence dem seetaan yi ñun dañoo bëgg làmb di ko dund lii bu amee itamit Pape Thialis bu taxawalee Baye Niang ak Tapha Tine loolu fierté la ndox ñooñu ñaari champion lañu ñu war leen a recevoir fii suba ñu ñëw fii présenté wu fii wane ne ñoom ay champion lañu di oo waa gox bi yëpp ñu ñëw fekk suñu ci biir Joal suba. Ah, kon suba gala bi lan lañ ci mën a xaar suba. suba moom mbor boo gi a gis na nga ñëw fii amateur boo gi a gis na nga ñëw fii ndax def nañu at ak ay weer xam ay ay kii seetaanuñu làmb gox bi xam nga fii moom Joal moom dëkku làmb la ndax xam nga fii lu tax mu nekk dëkk làmb mooy lan Robert suñu père Robert fii la dëkk def lu ne ci làmb ñoom Simon ñoom Yaxya ñoom Sédar ñoom góor gi Senghor ñëpp ñu ngi fii biir Joal kon boo jógee dakaar ñëw tegg si fii rek mel na ne sa jaan wàcc na ñëw na fi nga xamante ne dañoo dund làmb xam làmb biir Joal fii mais dama gëj a gis ay champion yoo xam ci mel ni Yékini ku ci mel ni euh, Ablaye Ndiaye ñooñu fuñ ne. ñooñu yëpp ñu ngi ci biir dëkk bi amaan suba mën nañu ñëw fekk si bés bi parce que ñooñu ay champion lañu te bëgg nañu lamb dañuy dundal làmb waaw. ñoo ngi lay jaajëfal bu baax. merci waay grand ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a waaw jërëjëf.